Samba Ndiaye nee na gars yi nañu gars yi nañ dégloo dafa am loo xamante dafa dafa juddu. nee na bëggoon na jàppale mbër yëpp. mais nee na jox na la ñetti abdu. nee na jox na la ñetti abdu bombardier. Samba Ndiaye nee na jox na kii trois pièces. nee na yow jox na la trois pièces. Ah. Samba Ndiaye moo ko wax léegi. donc dama la koy dama la koy dama koy jox léegi nee na bu leen neexee mu jox leen ku nekk dix bu leen neexee ngeen dem ñawlu. mais Samba Ndiaye mi nga xamanteni ni promoteur immobilier la nek diggante Tivaouane Peulh ak Apix. Mhm. yaa bàyyi biige nee na jox na la yow 3 pièces bombardier joxna franc 3 pièces joxna Malik Malick Thiandoum 3 pièces jox na tamit. Euh, euh, Mansour Mansour 3 pièces. ndaw 3 pièces lool lool lool lool la ma wax légui merci Samba couleur bi. nee na couleur bi ak lépp c'est à déterminer li ci gëna a neex nag man la ko commandé <laughs> avant fashion la ko commandé. ah, ah, ah. ah non li ma wax rek la wax. li ma non li ma wax laa wax daf ma ne waxal ne ko Malick Thiandoum ak euh, le promoteur ak ñaari mbër yi kenn ku ci nekk jox naa la trois pièces man la ko commandé. ah te sax xaalis bi nee na keneen léegi. keleng waaw waaw ah, na tissu bi ni keleng après. non loolu moom merci beaucoup <laughs> loolu moom man du ma waxanto te du ma wax dëgg la waaw loolu moom lu wax dëgg la. et puis Ama Fashion moo may ñawal. Ama Fashion moo lay ñawal. voilà yow bu la neexee amaa Fashion ñawal la. bu la neexee Bombardier Ama Fashion ñawal ko bu la yéen ñaar moom seen i seen i trois lamb ja lañ koy indi. c'est l'œuvre de Samba Ndiaye Malick Thiam doxalal. ayca. ñang baalo. la ilaha illallah borom parcelle likoor. ياي بي خلي سفرة لا إله إلا الله سفرة تنجر ويجو طيب. borom géejawaay Malick est-ce que xam nga ni kombaa bi. xam nga ni ci gën a neex diggante parcelle la ak géejawaay. la ak géejawaay Malick. Mbaye. ñang baalo ak ah, safara jël leen ñang jëlal benn micro. Ah, ah. safara jëlal benn micro. président Thiam nee nee na ma mbay jóob waaw. lu tax léegi ngay bañ safara bi. ah Mbaye Diop. all kon léegi safara c'est fini. Mbaye Diop. Mbaye Diop numéro 2. Mbaye ñang baalo nuyool. gars yi dañoo ragal safara di. safara bi gars yi dañ ko ragal fara moo tax nga fay ko. <laughs> waaw safara si amatul léegi kon mbay joob numéro 2. on est dama tudd safara léegi. Lamine Lutte TV nuyu nañ la sama rakk ji yàlla yàlla defal la jàmm. dafa tudd safara combat yi jafe mu ne léegi baal ba tudd mbay Diop Mbaye Diop numéro 2 <laughs> te xale bi nag Malick dafa am lu nekk ci moom de ah. mi ngi bëri xale bu dangereux mais kii dafa gëm boppam mais ma ñang baalo mii waa parcelle dañ koy yónni te yàkkamti ko ñang baalo nuyool nuyu nañ la auzubilaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bon jullee ginnaaw bon sant yàlla julli si yonent bi xam nga sant suñu ñaari waajur ñu ngi bëggee ñu fi teew ñëpp mm-hmm. di siyaar suñu papa bombardier ko waa mm. di ko ñaanal jàmm gudd fan wér gu yaram ko waa mm. waaw di bëggee tamit suñu grand franc di ko ñaanal ndam mm. grand yëpp xam nga Mamadi nekk leen di bëggee di bëggee xam nga suñu grand PDG Mansour xam nga waaw ñu ngi koy siyaar bu wér wér di ko ñaanal jàmm ah. uh-huh. waaw moom waaw di santaat yàlla julli sunant bi di sant waa kër papa Seck yi di bëggee Mansour ba waaju baax waaju gore waaju tabe bilaay dëgg la parce que nit su nekkee ay ambition ak ay professionnalisme yoo xamante ne ni dafa mhm. présentable da koy waxal dëgg la jàmbaar léegi-léegi jàmbaar jooni jooni laa leen tuddee wàññiwul dara seen waxaale yàggul ah bon non yàlla xam na loolu prib dip ma la <laughs> jàmbaar léegi-léegi jàmbaar jooni jooni te liggéey lu la may lu ne du la ko xañ kii day liggéey lu bari wax tuuti kon ca kaw ci kanam ci lu baax grand majoura ah. waaw ginnaaw ma sant yàlla nag julli di sant sama papa ak sama yaay Youssou Ndour ko wayoon maa ngi nuyu di nuyu Franc di nuyu Fadam ak mbërim fi nekk yëpp ak suma adversaire nag baalo waaw di ko wax mu waajal lu mu mën a waaj te xam ne am na combat ndax làmb ji làmb la joo xamante ne nii waa Géejawaay dañ ma ci yoonu yàkkamti yow amoo combat taxawaalu waruma yow amoo combat dama ni samba setan nga samay combat dox mu changer safara bi dog tuddu mbay job dama ko kan naron coppite yóbbu ko aljana man dalal ko ndoxu jamalay mu nana, naan xam safara mom day tàng da ko naron jele safara dama ko naron ni coppite safara ni nga aja nah. <laughs> aljana dem ninggal, eh. juga fa dem yof dem teeru mam seydi indil ko kan ndox mu nan ndax xamna ni day sonu bu fu yëpp ya, taloko ko ba pare lula la fay ni déggoolu la la roi boudin moy sen dalal jam fofu après ni nga dem roi boudin do fa dem eh. taloko hopital roi boudin yang balo. xam nga nekkuma fi woon. nekkoon ma di bëgg nag waa Maroc bu ma nekkoon. ñang baalo Maroc la demoon fa la préparé. ñang baalo su ma la tànjee. doo bii nii ni nga ànd ak moom dem Fuuta wala. Guinée dem dem sàmm ji. dama ci tàngaane bi Pierre. moo tax yow di nga sàmm man doomu métis laa man doomu pël ak lébu laa. xam ni yàlla la santaane. man doomu pël ak lébu laa. yow su doo dërëm su ma la jàppee. ña nga barki Serigne Fall. dama lay daan waaw yow ba suur yow doo dërëm. yow yarul rek. yaru ñang balo yaru rek yaru liñ la dé ak li nga yaakar nekul suma la tangé su démé arène national ngay xamné ñu laalante rek waaw doon beural ak mbay job safara duñ benn ñu mako laal fi dégo luma wax ci suma ko jappé ba bayé ko waaw roi bu né ba sé géjé wa moy seen dalal jam moy seen dalal jam ba di seen hôpital fan fa la jëm ñing fa dem la nga né wa lu ko fa yob seen ñu won suma jaar mëno fa jaar xam nga da nga ni ñang balo da gaay ñang bi la leen doon dégo luma la wax mais da ngay ñam ñang ñam baalo bi Mbaye Diop safara bi wax laa lay wax yow ñaar micro bi yëkkatil micro bi Mbaye Diop yëkkatil micro bi da ngay wax ak altine ñu déglu lu ma la yooyu dañ ko romb yow ñang baalo la nga neex tànkee Mbaye Diop liñ la di yaakaar li nga yaakaar nekkul lee ñang baalo maa la gën a nekk musiba maa la gën a si ñoom Lamine li TV nii di wax déglu lu ma la xam nga ñoom Lamine ñoom dañoo nekk eh! ñeme ay ñoom Papa Lamine Samba dëggal mu naan ay ñeme taxaw foofu noonu da ngay ñëw liggéey mais maanaam eh, yow su ma la invité nga ñëw sama la jàpp muuma ñang baalo doo dërëm lii te bu ñu àggee arène nationale le premier mais ngay xam ne doo dara. yow yow dama lay lekk yow am minute ma lekk la. yow eh, lu leer laa lay wax. li nga foog nekkul liñ la dee nekkul. waaw yow sa waay yow yarul rek ma dee. déggul ma la yarul rek. yow dooma may ngay xam ne. soreetul ñi nga doon bëre ak Mbaye Diop safara duñ benn. su ma la jàppee dama lay cof. moo tax da ngaa umpale dama lay noggatu ba pare. billaay wallaay da ngaa umpale Mbaye Diop yow dinaa la cox ba pare la ngay doog a yow ngay moroomu ñoom guy gi. yow ngay paa yow yow di sa bant yi balaa mu maa lokk damay topp mbëri ci la sa bant yi balaa mu maa lokk. dama ne la doon duggee stade. waaw lii da ngay da nga koy téye ne le xam Mansour Boss civilisement yooyu yëpp garaawul ànd ak waa SAPCO. le premier mai da ngay daanu kasih allah. da nga kase nga kase couleur bi. li nga marié garaaw la mais moom tam marié na ko de. mais xoolal tey ngaa de moo nangu samay band. non Mbaye Diop artiste la de. ah nangu samay béjjin te maa ngi demoon ba Casamance ak Gambek Waaloog fu ne pertu ni ma dugg mais dañ koy may loolu mais jour làmb ja lépp luñ indaale si kàttanu Mawlaana. day dugg dugg waaw père yéen yàgg ngeen ma aj nag <laughs> aj ngeen ma ñaari yoon six mois ah. man xam nga corona bi laa dugg si làmb maa fi mujjee ñëw ëpp fi mandat dépôt xam nga <laughs> waaw loolu def yëg mais mais benn accident mujjee moo moo dóor moo daan mbër bi ba pare dóor ko après xool père man ñu mujjee baalu na ci ba tàyyi ndeysaan may aj rek ñii nii père nañ la jéggal rek loolu tamit te yàlla tax te su ma ñëwee fee ren may juge benn juge toog nii procureur xam nga ñu ñemewuñu yooyu ak ñen ma ñaari yoon six mëns yàlla baax su ma ñëwee lépp lu ma yor père xam nga te yàlla tax non kenn dootu la ajati mais mbay Diop dama lay wan ne am nga làmb ñan yow su ko nga ngay lek fara signature ba naan yow fara jugal ma lekal serigne yow yow la yow la xifon eh, robel baagi ni ñang bal yow la xifon ma dugg al casamance dego ma ne robel baagi leer la la yox ñang bal am nga sa parfum bi ngay xëy sa gàllaaj bi. boo tëddee doo nelaw ya xam nga. waaw léegi gars yi ok léegi. léegi ña nga baalo waa waaw waaw buy wax non combat bi dafa neex. mais waaw léegi dégg nga lamb yi damay ragal ñu su bëree ba pare sax gars yi ñibbi ah. ndax man ak kii làmb la joo xamante ne ni ci biti dañ koo soxla ci biir dañ koo soxla. waaw léegi leen su ma ci biir xam na fu may waxee. ok ma nee ko ci biti xam na fu may waxee. leeral ñaanal laa la ñooñu amul nit. non loolu du Thiès ay la loolu ci kaso bi ñu ngi leen di santaat ya baax di leen ñaanal yàlla tegale natt bi. waaw ah. mel ni ñu ma doon gunga ku ci mel ni Jogo. ku ci mel ni Jogo Alpha Peul. ma bay damay am laamu ñu ma doon bay wuy ma xam am la di déglul ñang bay moor borom garaam ñang wuy ma léegi ñang xoolal dañuy dañuy dañu nekk ci temps te vraiment def ngeen signature boo xam ne sénégalais yëpp kontaan nañu léegi li ma li ma bëgg mooy nga woote waaw waaw wooteel man ñu may woo ñëpp xam nga ndax dañu yaakaaroon ne affaire yi xam nga suñ ñëwee comme bu amoon mbuur laa ko tegoon ko waaw ok ok may ñëw indaale convoi bu rëy. ndeysaan dëgg la dëgg la xam nga sax dugg na sax première porte ñu ngi fële taxaw. dëgg la yàlla baax xam nga maa ngi mais li nga ko waxee rek jour lamb ji dinañ sama booy yi ma déplacé ba pare xam nga te te dugg nu xam nga. non comprendre ni waa Seng xam nga. Ah. waaye ëm seen grand frère Baye Zal muuma. Hmm. xam nga booy Seng yëpp maa ngi leen di bëgge ak sama gars yu ma àndal waa Cambérène waa Gétt ga. noo hmm. am benn gétt foofu bu tudd Miami quoi. Hmm. Miami City ba sa États-Unis lañ ko tuddee. xam naa Miami xam te ay fasa fay nekk ay golo. ay eh, munaat barki démb seen nag ba fa nekk maa ko jën ay nag waa père waaw. gis nga maa jënd nag bi barki démb waaw yaa ko ah. <laughs> yow yow da ngay jàpp si affaire yi. di bëgg nak sama ben grand xam mom moom soo bu nek Suisse da ci japp bu baax baax baax sama boy yu nekk Italie xam nga ci japp bu baax baax baax baax baax waaw di wo nak wa Cambérène xam Talfa mo dugg na waaw moy loolu champion la. di wo wa Cambérène xam parcel parcelle 1 ba 26. di wo ñepp di wax nak bay bolog yi xam nga 2500 la. xam nga bolo gi nag xam nga mi ngi toll si juróom fukki junni dafa mel nii. Ah. waaw gars yi dañ si jàpp soxna. dañ jàpp ci bolo gi waaw si jàpp bu baax a baax a baax. Mansour yow tamit ju jënd bolog xam nga nga bàddil nu bolog. tamit ah wala. waaw acca jaajëf di wax ak yow sa waa yow. ah. jarul ngay futteeku. di jàll jàll le premier yàggatul. ok léegi mbay ñang kaay waaw ñang may ko may ko waaw dama koy wax daa am lenn lu ma koy wax rek. waaw waaw daa am lenn lu ndaw. waaw muy jour boobu noonu. école du du jàng. waaw xam nga ñëpp kenn du. liggéey premier mai la fête du travail kenn du liggéey. yéen rek la war nga waajal bu baax a baax a baax a baax. ok nga xamante ne fii ak fële. Mbaye Diop acca wooteel dama ñu ma àndal ma la moom Diop. Mbaye wooteel père waaw avant tout damay nuyu sama turandoo Mbaye Diop. damay nuyu sama turandoo Mbaye Diop di ko wàcc combat bi ak ci mel ni sama papa la Diop. ndeysaan ak Malal Taal Fou Malade maa ngi koy wocc combat bi mu jàpp ci. xam nga ak Medoune Mbour Mbour laay dugg nag dafa woo Medoune Diop xam nga di woo Amadou sëy amadu Gueye di woo saltige sumu maara may ñaala di dem ba Joal di fa woo Seck maara mu ñëw doog a wàcc caajaay xam nga caajaay maa ngi fay woo Omar Young monsieur le maire mu jàpp ci ak ku ci mel ni màggat suma doomu baay di nuyu père Gora mais sama turandoo la suma mag la féetee ci man. Mhm. père Gora photographe sama turandoo la te en plus mag la. ci man ay defal jàmm xam nga. doo ah. Gora xam nga su ma jigee foofu nag damay dugg caajaay. damay dugg Touba. su ma duggee Touba dama fay woo ku mel ni. Eh, sama turandoo maa ngi lay ñaanal jàmm Angleterre. Uh-huh. ak magam maa ngi koy wocc ci combat bi Pape Mbocc ñu koy wax Pape Mbocc borom oto yi maa ngi koy wocc ci bi dugg si waat géejawaay nag. di 53 ay see yëpp ñu xam ne seen doom seen sët seen rak seen jarbaat moo xewle xam nga di woowaat mbuur ku ci mel ah. Eli suma benn mama, Eli borom mbuur géeñ maa ngi koy woo ci combat bi di dem ba France xam nga hmm? di fa woo mbay bu gàtt di fa woo wéeku xam nga di fa di woo tamit euh, maître Dieng maître Dieng maa ngi koy woo mu jàpp ci bolo pap pap kan moom borom marché yi jënd la ma ñaari bolok maa ngi koy sant di ko gërëm. di woo waa Géejawaay yëpp xam nga di woo kulli kuy borom sareet. di woo waa Seras waa Seras ak waa Daral waa Seras ak woo xam ku ci mel ni sama papa Fouta maa ngi koy woo. Fouta maa ngi koy woo ci bi ñoom Gara Mbaye ñoom Gara Ndiogu Bey. Pape Ablaye Fall alliance Palaay suma Gara maa ngi koy woo ci combat bi di woo waa marché bees xam nga di woo waa ASECNA. waa yëmbal benn bara sunu garant la ñu ngi ñaanal jaamu di woo kullu kuy bëggee mbay jóg safara ci combat jërë ngeen jëf kon mu ngi noonu combat baa ngi noonu jërë ngeen jëf le premier le premier mai la fête du travail damay borom borom Italie jërëjëf maa ngi koy woo combat Naar maa yaakaar naa ne yaakaar naa ni nag yaakaar naa ni combat bi nekk ñang baalo la ak Mbaye Diop ex safara Malick Thiandoum ban moo ci des booy ok c'est bon jërë ngeen jëf ah Malick jëf. gars yi ok gars kenn du ko ñiit. ñang ñang wuyu toogal toogal. Mbaye Diop toogal Mbaye Diop toogal ñan toogal. jaay gars toog leen. Malick jërëjëf Malick Mamadi Ndiaye. Malick am nga gan Malick am nga gan.